asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Sénégal mbokki waa bitim réew muy diaspora bi fu waay mën a nekk nag muy góor muy jigéen muy mag ak ndaw ñu ngi bokk di wax xaaloo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàllaa ñu fi indi ci moom lañuy ñuy delloo di leen jaale li nga xam ne moom la ñu seq ñun ñëpp muy nitu yàlla ku baax kii nga xam ne Sénégal yi sëngéem nañu démb ñépp jooy nañu seen rongoñ tuuru na ngir ñàkk perte bu mag bi ñu am démb ci nitu yàlla kii di imaam Alioune Badara Ndaw rahimahullah yal na ko yàlla yërëm imaam Alioune Badara Ndaw di ko xam ne tarbiye na ay junney junney nit ci lislaam ci njub ci mbaax ci ngor ci xam sa diina bari na koy jiite ci jàkk wala ci jumaa li ci ëpp ci réew mi ñu ci bari imaam Ali Ndaw moo leen jàngal bari na ñu samp ay daara fii ba Farafeñe ba Gàmbi ba fu nekk imaam Ali Ndaw a leen jàngal yar na nit ñi ci lislaam yare na ci ngor jàngale na tarbiya ba képp kum yar tey jii buñ la faloon ci nguur doo na kees doo rey nit doo triyande doo def transement imaam Aliou Ndao fexe na ba jikko yu sell yooyu def na ko ci ay junne junne doomu aadama monsieur le président de la république nag di Macky sàll xëy rek tuumaal ko ak terroriste goo xam ne imaam Aliou Ndao billaahi la si laa ilaha illa huwa xamul luy terroriste imaam Aliou Ndao du terroriste de amul mbokk muy terroriste ci àdduna amu ko waaye Macky Sall ne ko terroriste nga yebal gendarme yi ñu ñëw fa trois heures de matin ak seeni kàggu ak seeni yére yu ñàng ba mbokk kër ga am fa benn jigéenam bu fa tiitee li may wax ñu ngi may dégg ba gannaaw yàlla ci la feebar ba ni mu dem barsàq imaam Aliou Ndaw ñi fekk ko ci biir biiri mbokkam fekk ko ci daara ji fekk ko ci biiri soxnaam fekk ko ci askan woo xam ne tey moo leen doon jiite nekk seen yaakaar ñu toroxal ko takk ay loxoom dugal ko ci biir oto sàndama yi wër ko keroog la imaam Aliou Ndaw dem ndax asgor soo ko defee loolu rek ray nga ko yàlla na ko yàlla yërëm monsieur le président de la république Sénégal fi nga dëkk sa frère sa mbokk imam Alioune Badara Ndaw di sa doomi baay ngeen bokk dëkk ci réew mi nga yor fi baay yor fi ndey mu yor fi baay yor fi ndey donte kon dundatuñ ni nga dëkkee ci réew mi noonu la fi dëkkee nga xëy benn bés rek tuumaal ko tuuma ji waaye yàlla def na sutura ba loolu amoo ca ndam bañ ko toppee topp ko ñaari at ak juróom-ñetti weer foo dem nag am na fa ñu xaw a jub am na ci benn juge boo xam ne ràññee nañ ko ci ba moom bokk na ci ñi nga xam ne tey ñoo ko ne sëñ bi seet nañ koo ak suuf waaye li lee tuumaal du yow ñu ne ko yalax bàyyi ko mu ñibbi kaw la kenn dàmp joxu ko ndàmpaay Imam Aliou Ndao du terroriste monsieur le président de république nga làq sa kër ay sàcc ñoo xam ne tey ku ne xam na liñ jël ay géwél ay milliards bañ di leen sàcc seen biir kër juróom ñetti téeméeri million lu topp ñooñu de yóbbuwoo leen kaso ñi nekk ci assemblée bi nekk ay député di soppi ay xaalis ay dollars ak euro buñ tëddee ci kaso it rombul juróom benn weer ñooñu de tëjoo leen kaso téyewoo leen fa kenn dugalu leen ci néeg boo xam ne amul fenêtre amul fu ngelaw jaar ñu taxal ay laser tiim ko defoo ko sa bokk yooyu li ma gën a jaaxal ba nga toogee ci réew mi ak léegi gisuñu kenn ku la wër bokk ak yow nga jàpp ko yóbbu ko ci kaso bi déedéet man de gisuguma ko waaye imaam Aliou Ndao moom bokkut ci ñu ñuy teg coonc yow yaa wax sa làmmiñ am na ñoo xam ne maa teg coonc ci seen koo ba kenn mënu leen laal yaa ko waaye imaam Aliou moom bokkut ñuy teg coonc suñu jarbaat boobu Boubacar Seye sans frontière fii la wàcc rek aéroport nga jël ko yóbbu ko kaso ba bi muy génn sax jabet la fa jëlee tey nag lenn ci këri diine ñoo dajewaat tey gannaaw buñ jógee jugee Kaolack démb ndax ñun ñoo ko jëlee hôpital Fann topp tali bi ba yegg Kaolack ngaan Alassane mbooloo ma fa wàcc démb xam naa ne mbooloo mu yàlla yónni la parce que imaam Aliou Ndao képp ku ko xam nga dégg tey jii wuyu na boromam fu mu la mën a fekk ci àdduna dinga bàyyi lépp looy def dem taaf ca barke ba fekkee buñ koy rob ngi jàpp imaam Aliou moomu ñu fitnaal ko ci kaso bi mu sonn ci kaso bi ñu taxal ay lumière ay laser bu bëggee nelaw sax lu mel ni ay cuuc la indi muy sab du nelaw pendant ñaari at ak juróom-ñetti man mii di wax yow mas nañu waxtaan des mu ne ma sëñ bi man de yi ba ma génneek léegi taxaw taxawaay bu yàgg sax mënu ko su ma taxawee damay lox loolu muy tekk mooy xam nañu ne ci kaso bi feebar la fa génne waaye yàlla moom mooy atte ëllëg ma du ma paase foofu li des yàllaa ko yor yàllaa koy atte monsieur le président de la république da waxoon ne tey Sénégal da nga koy yor ci yor bu sell da ngay maandu yaa waxoon de lépp lu yàqu woon alal juñ sàcc da nga ko delloo si doo am def ku ma am ndey ak ku ma amul ndey lépp yaa ko waxoon Abdoulaye Wade nga joteeg moom nii Sénégal yi yëpp ànd ak yow participer jàppale la nga def ne wër àll bi kaw ak suuf ñu topp la ba yóbbu pale jox la assemblée bi jox la tribunal bi jox la suñu militaire yeeg suñuy police rek yépp ne lañ la wóolu yow nga jàpp nag dooley police dooley gendarmerie dooley administration bi yépp di ko dooti suñ kaw léegi jàpp tëj jàpp tëj jàpp tëj Khalifa Ababacar Sall di sa doomu baay bu ngeen bokk dëkk bi liñ ko tëjee woon yaakaar kenn du wax ay 10 milliards ak yooyu te am na ñoo xam ne tey ñu ngi détourné ay alal ju kenn xam nu mu toll nga yóbbu kaso Boubacar Seye nga yóbbu kaso Déthié Fall nga yóbbu kaso Ahmed Aïdara nga yóbbu kaso Cheikh Bara Dolly nga yóbbu kaso Abdou Karim Gueye nga yóbbu kaso maanaam li nga yóbbu ci kaso Clédor seen nga yóbbu kaso ba nga toog ak léegi juróom ñetti téeméer lu topp ci nit ay doomu aadama li nga def kenn mësu ko def Sénégal du Senghor du Abdou Diouf du Abdoulaye Wade monsieur le président de république ngelawaay li nga waxoon man ngeen maa seet feet fu nekk ba mu des wax wax ci troisième mandat yaa wax loolu mu leer nañ bon sa ministre yi bu ñu taxawee naan la man ngaa nekk troisième mandat ñi koy wax waxuñu dëgg te billaahi da ngeen ko siq ak Sénégal yi parce que nag fii Sénégal la ñun ñëpp ñoo bokk seeni poste ngeen di sakkanal ak seeni place mais li ngeen wax xam ngeen ne tegu leen ko ci dëgg Macky Sall waxal na boppam nee na moom mënul def troisième mandat mën nañ koo séentu fu ne ba mu des foofu yéen naka ngeen di taxawee di wax ne mën naa def troisième mandat ba pare ñenn ñi taxaw Ousmane Sonko boobu ñun Ousmane Sonko jàppale ko nit kuy wax dëgg la ñu jàppale nit ku jub yo sallallahu alayhi tagguñu ko lurul jub jikko ju rafet Ousmane Sonko bañ ko dalee digg ak léegi gisaguñ mu saaga nit mu xas nit ay ni tamit gisaguñ ñi def lu mel noonu te it mosul wax génn ca gisuñ mu tuumaal kenn di sa kenn ñun loolu lañ gis ci moom kilifa diine yenn yi nga xam ne tey ñu ngi koy woo ci seen boppit loolu lañ gis ci moom. kon nag lenn ci kër yi diine yi tey ñu ngi jaale waa Sénégal yépp fu waay mën a nekk démb de yi Sénégal wërngal këpp ñëpp jooy nañu jooyloo nga ñëpp monsieur le président de la République góor jigéen mag ak ndaw. picc yi ci garab yi sax jooy nañu démb imaam Alioune Badara Ndaw te lépp yow a suñu mbokk nag dégg nañu waxtaanam di jàngalekat di jàngkat di am xam ko am xam-xam muy imaam daam Ndiaye imaam Dame ñu ngi lay nuyu xam naa ne ku am ngóor a nga xam naa ni itam ku bëgg lu baax nga waaye nag ñu ngi lay xamal ne la madame Dame bi. Maram Faye Sall Marème Faye Sall su bëggoon tey def lu baax ndimbal ba jëkkëram jàppee imaam Alioune Badara ndaw tëj ko ci kaso bi te mu wóor ko ne lii ay tuumal imaam buy jàngale alquran imaam buy jàngale xam-xam imaam buy jiite ay jàkka di jàngale yor ay daara mu wóor ko ne lii ñu ko tuumaal du dëgg mu taxaw wax jëkkëram ne ko génn ko dañ ko tooñ génn ko du terroriste nit ku baax la bu defoon intervention jamono jooju bon mën ñu wax ne madame la présidente def na lu baax. waaye bàyyi nit be mu nekk ci diggante dee ak dund sukuraat imaam daam njaay téeméeri dërëm soxlawuñ ko ci moom soxlawuñ ko ci mag jëkkëram monsieur le président de la République mbokki imaam Aliou Ndao du ñu mas jël mukk dërëm di ko jëmee ci lu jëm ci imaam Aliou heureusement subhanahu moom mi nga xam ne moo ko indi woon jël na ko démb yàlla na ko yàlla yërëm kon imaam Dame Ndiaye xëy na danga xër waaye nag foofu moom ñu ngi lay xamal ne la ñun ñi nga xam ne tey ay wëllëreem lañ. ak ay bokkam loolu moom duñ ko mas a wax duñ mas a fekkee fuñ koy waxee te ànduñu ci ndax fam wax ja baaxee woon mooy fañ ko tuumaale tëj ko ci kaso bi bu fekkoon madame la madame la président dafa jógoon taxaw défendre ko comme ni ñuy défendre ñeneen ñi nga xam ne dañoon soppi xaalis ak ñeneen ñu yor ay milliards te kenn jàpp leen ak ñi def lu bon ci réew mi waaye moom dañ koo seetaan kenn tegu ko conc mu nekk ci kaso bi ñaari at ak genn wàll tey nag wuyu na boromam. kon tey bu nekkee ci diggante dee ak dund janax du wuyu mukk wootee muus fu muus wootee réunion janax du fa taxaw ndax xam na ne bu demee du dellu si kenn ku ne say noon duñ leen ne kañ yóbbale ñu faj la loolu moom xam ngeen ne loolu mënul nekk kon imaam daam loolu wax dëgg yàlla ñu ngi jéggalu waaye loolu moom ñun ñi nga xam ne ay wëllëreem lañ wax dëgg yàlla loolu duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg te yàlla def na ba nga xam ne tey moom mu fi nekkoon jiitu nañu te dañ koy fekk mbokk yi ñun ñi ñu wooyee kër yi diine yi day war nañu xoolaat suñ bopp bu baax nga xam ne am na lu ñuy bëgg a ñàkk te mu ngi xeeñ mooy confiance su population bi confiance su adduna bi confiance su taalibe yi ñu ngi koy bëgg a ñàkk de ñu ngi koy bëgg a ñàkk de te dafa mel ni sax ñu ngi koy ñàkk léegi te dara waralu ko nag ci ñun ñii la lii may wax nag ci sama laa koy dalee bu kenn yaakaar ne may dal ci kaw kenn déedéet dama cee bokk waaye maa ñu ngi ñàkk. confiance su population Sénégal tem nañ ba fi mu nekk nii mënatuñoo fal mënatuñoo folli te mosuñu ko man sax nag mosuñu ko man waaye mënatuñoo joxe benn ndigal ci del wateel diw wala loolu loolu moom jeex na ndax ñi ñi war na wóolu wóolu woon ñu wóolootuñu ñi dañ fi nekk nag di maslaa rek waaye confiance bi mu ngi dem te ñoo ko teg suñu bopp nag ndax la suñ maam yi nekkoon bu ñu ci nekkoon te daara ji te te jàngukaay yi kenn ci ñun ku ne su ko état bëggee laal ñu jóg taxaw wax ndax imaam Aliou Ndaw lii suñu mbokk Baay Faal boobu wax barki dem ba mooy dëgg ab sàmm bu ñu sàmmaloo ay gàtt war nga koo sàmm boobu ci benn ruur waaye dañu seetaan kilifa yi dañu seetaan wax yooyu ñëpp dégg nañ ko sëriñ bi wax nga dëgg bu ci dellu gannaaw yàlla fa bind na la ci ay tiyaabo bu ci dellu gannaaw de am nga ci tiyaabo am nga ci jaamu yàlla li nga wax ci ñun man mii man nga waxal loolu nekk na ci ñun ndax imaam Aliou Ndao mii dañ koo seetaan dañ koo seetaan gannaaw ñun fi ne professeur Cheikh Omar Diagne dañ ko seetaan bañ jàpp ko am na benn kilifa bu jóg di santaane pour ñu téye ko fa xam nañ ko suñ ko waxoon tey ñëpp dat gémmiñ ci suñ biir dañu xeex ci biir te ku jàppale Macky sàll tey ci li mu nekk rek bëggoo sa réew ndax kii dóor nga ne ko dóoral ki ñi dóor nga ne ko bul jooy Macky sàll day dóor ndax bi fi affaire bi amee génn na léegi da ngeen maa bett danaa fayu kon ku bëgg senegal bëgg sa askan bëgg say nit doo jàppale Macky Sall ci jamono yii ñun nag li tax ma rus en tant que nitu diina en tant que ci kër yi diina yi mooy nga ne yow ay nit ñu baaxal a jur sa maam ñu gëm ko gëm sa baay ñu topp la nga dugal leen ci parti politique dem ba ci ca pànk ja nga wor leen jaay parti ba def ci sa poche yuqaadihuuna llaaha wallaziina aamanuu maa yaqda'uuna illaa anfusahum te ñun ñëpp ñu jàng loolu xam ko xam li yàlla wax ci war waaw fexeloo ba mu nekk na soon xol yi maradun wopp woppi lan woppi feebar woppi wor woppi naafiq woppi lu ne parce que mënoo ànd ak nit ñi ni woo leen orienté leen ci dara ba yàgg nga roccee ko ca da ngeen ne kenn du la wax dëgg man ci sama bopp laa koy waxee nag jëmewuma ko ci kenn bu kenn yaakaar ne moom la attaqué li may wax dama caa bokk sañ koo wax wax ko nañu fexe ba defaraat suñu jikko yi yàlla kat ñëpp la fi nekkal ñu wax ko waxati ko rasulullaay mi gën ñëpp mu ngi bar sàq di xaar bés penc ci yàlla atteegul kenn kenn fokk ñëpp dee faatu yàlla siisu nit ñi waaye nag bu ñu joxee war ma dañ ko xam Serigne Moustapha Sy Moustarchidina ñu ngi lay sant di la gërëm def nga sa warugar xaw nga sa yoonu pàppa Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yàlla ñu ko yàlla fayal fayal ñu ñëpp nag Serigne Habib si bu maam Abdou ca ca Jaksaaw ak àll Alioune Badara si bu maam Abdou seen taxawaay population bi xam nañ ko yëg nañ ko xam nañ ne ànd ngeen population bi yërëm ngeen population bi sëñ Moustapha Sy mu tax si diina sa taxawaay ci Sénégal Sénégal yi xam nañ ko daaw ba ren lu ëpp daaw sax yaa ngi nekk ànd ak sa population gis ngeen xale yi ñu de ñun ñii xale yi dofuñu de xam nañ liñ melokaanu de xam nañ aussi li xew lépp lu luñ nas gas ko suul maasale ko xale yi danañ topp ñal wi ba sulliwaat ko génne ko ne lii la parce que fi mu ne réew mi dafa soppeeku te nag fi mu ne kenn gëmatuñu nag xanaa maslaa fi nekk de waaye ngëm amatul de man ci laa bokk dañuy daan jox addiye di jox lu ne di daw ci suñu gannaaw waaye gis ngeen Ousmane Sonko bii sax barki demoo Ndiaye bu génnee léegi taxaw ci station di jënd waa sax ñëpp fàq dara wala ko lu dul njub ak dëggu. buur ba mu doonee buur ba léegi dëgg ba mu doonee buur ba léegi mosul folleeku du ma sa folleeku kon nag suñu mbokk yi nekk bitim réew ñuy dégg seeni tur donte kon gisuñu leen ku ñu wax ton ku ñu wax Dédje xaw ma ak madun Diop xama booy Cambérène dégg nga Madoune Diop ak euh, nakalaati Kayif soo xaw ma ba ba ngee dem ci Ousmane Tounkara il faut ñu tudd leen parce que doomi réew mi ngeen te da ngeen sonn ci Sénégal te kenn fayu leen lu baax rek ngeen bëgg yéen a wax bu dégg ba su baa ngoon pour Sénégal baax waaye léegi li ma gis monsieur le président de la République ku ñu jéem a jàpp di indi Sénégal dafa mel ne kon Sénégal safara la wala Sénégal kaso la ku ñu bëgg a rek ne xaaral ñu fexe la jàpp def mandat daal indi la Sénégal xanaa kon Sénégal léegi kaso la kon yow xam nga ne Sénégal fi mu ne na te la nga waxoon nag xale yi pour ñu am liggéey xale yi ba léegi ñu continuer di dee ci géej gi li dee daaw jéeg ak ren kenn xam na mu toll ko sëñ Moustapha Sy waxee te dëgg la dee ci xale yi kenn xam na mu toll rawatina nag insécurité totale insécurité totale fi ne boo paanoon ci bi ay bandi fekk la fa rey la ñi moo ubbi benn cantine fi mu ne ci yoonu yoonu euh, euh, dem ñaaju wi boo fa créé woon tey benn restaurant tey def fa jàkk def fa restaurant def fa say affaire wallahi semaine doo ko def te réunion la affaire bu la fa agressé la yow Macky Sall loolu xam nga ko yow insécurité totale jamante paaka yaa ngi mel ne tulleeg male permis de point yi ñu sutudoon anamu foo jaar camion ñu arrêté la yéen policiers yéen gendarme yi yéen magistrat yi waaye ngel la lii de amutoon ci ab du juuf amutoon ci Senghor amutoon sax ci Ablaye Wade kenn ku ne ci yenn dafa jàng bañ def ko commissaire wala colonel ah bu juge wala président tribunal sa garaat boobu benn garaat bu nu ko koy même président day moo moom moo la fa rek waaye nag yow sa garaat bi dafa am loola garaat boo sant dafa am lu la sant daf laa sant ne la suñ la joxee loo xam ne du dëgg bañal waaye lu ñu la sant rek nga def ko ay préfet di politique Macky Sall dugal na ñëpp ci politique docteur day politique commissaire de police day politique gendarmerie day politique eaux et forêts day politique mbooleem tey ñi nga xamoon ne ñu nekkoon ay sécurité ñu xamoon leen ñu maandu fi mu ne Macky Sall dugalee leen ci politique. politique rek léegi sax day wax ne léegi sa koñ boobu fa amul dara ma dàq la yow sa koñ boo fa amul dara ma dàq la bu ko defee nga jël xaalis bi séddale di jënd ay nit. nga ne yow corruption ngay xeex yow président de la ngay jënd ay nit waa léegi yow lii nga wan Sénégal yi léegi bu ci doom yi yaroo fu ñu jëm monsieur le président de la République Sénégal yëpp ngi jooy Sénégal yi sonn nañ dëkk bi fi mu neen fépp ndox la booy liggéey lu toll Sénégal Sénégal amuñu mooy amuñu oto yu baax amuñu yoon yu baax nga jël benn xaaj bu paree ci déwén sa wala ci ñaareelu at ba nga jël ba ci des waaye fu ne nga laal ko pour nag fas yéene ne yow ku fi war a yàgg nga loolu lay niru waaye déedéet ñaari mandat rek ci ngay incha allah rabbi wallahi ñu ngi lay ñaan nag ngelawaay coowal Ousmane Sonko lii coowal keneen coowal keneen nañ ko fay nag nit ñi am jàmm nit ñi son nañ ay riixate yi ay jiñante yi nañ ko arrêté lii kat kenn mësu koo gis ci réew àdduna bépp ak ñu reetaan diwo ko biiral diw fekk nañ ko fi viol nangam am ci ñuy wax am ci sax ñu wut xaalis léegi ci loolu ngeen la waaye monsieur le président bi wax ji fay ko nag mu jeex ci réew mi tàkk Ousmane ko mënuloo koo baare ci élection yi di ñëw mënul nekk parce que yow moomoo Sénégal rek si am cër mu am fi cër waaye diw mooy bokk diw du bokk diw mooy bokk diw du bokk ba suppléants yi moomu ji dem lu ruslu suppléants yooyu ñoo la gañe te opposition bi kat ndam li ñoo ko jël donte kon def nga say daaba daaba mais ñëpp ñun nit nit ci diine yi ñun ñëpp seede nañ ne opposition gañe na ñun ñëpp seet nañ loolu ak loolu cour a defal ñëpp xam nañ ne opposition bi gagné na ak loo mën a def nag te yaakaar na yow xam nga ko yow mii yow président bi xam nga ne xel ne opposition bi gagné nañ ma ngeen la waaye indi ci mi jàmm ngeen la waaye indi ci mi jàmm Sénégal ñu ngi jooy jàmm jàmm lañ bëgg Macky Sall indil Sénégal jàmm indil Sénégal jàmm ngeen la waaye indil Sénégal jàmm Imam Aliou ndaw yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana man de duma ci sori waaye nit ku baax dem na nit ku gore dem na jàngale alquran ba dem na ku taril ay junne junne taalibe alquran dem na ñu ngi gërëm nag mboolem fu waay nekk di jàngalekat alquran ak dëkk boo mën a nekk sa taxawaay rafet na surtout nag Pastef yéen de dem nemmeeku nañ leen foofa ca mbooloo ma fu waay mën a nekk ci réew mi réew mu mën a dekk dëkk bu mën a nekk rek fees nañ fa dellu démb jénne ci seen poche di sonn di dem ak ñëw di joxe ndox yeneen parti it gis nañ fa ñu bari senegal gépp nag démb taxaw nañ fa démb waaye rawatina nag Pastef ñu ngi leen di sant di leen gërëm seen taxawaayu rafet na yeewi askan wi muy wàllu ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañ fa démb teg nañ leen bët ñëpp gis nañ leen ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla fay ñu ngi leen di jaale suñu mbokk suñu mbokk deret suñu kilifa suñu xarit jàngalekati alxuraan ba ko maandu ka ku jub ka imaam Alioune Badara Ndao yal na ko yàlla jégal te ko ñu ngi koy jaale waa yëpp ñu ngi koy jaale itam monsieur le président de la jaale sa frère sa mbokk sa mbokk doomu baay imaam Alioune Badara Ndao ñu la koy jaale madame le président de la République ñu ngi leen di jaale seen mag seen mbokk wala say rakk lu ci mën a xew rek ñu ngi leen di jaale imaam Alioune Badara Ndao ñu ngi koy jaale waa Sénégal yëpp ñaan yàlla jéggal ko ñu leen di wax asalaamualeykum gannaaw boo ñu leen nuyoo di sant nag ñi nga xam ne dañu naan ràññee ci dëkk bi ñuy taxawal lu baax ñëpp xam leen ñu nekk ay gaynde xam naa dafa mel ni sax maam yee leen yoon yónni ku mel ni daam mbóoj ku mel ni Clédor seen ku mel ni Abdou Karim ku mel ni Xurunqaan ko mel ni professeur euh, Cheikh Omar Diagne ko mel ni imam Mamadou Lamine Dramé bu desiti ko mel ni oustaz Euh, Malick Dramé bu Ahlulaay ñépp fàttewuñu kenn yàlla nañu leen yàlla fayal taxawaay bu dégg bëccëg yéen a ngi ci rajo yi yéen a ngi wax yéen a ngi dàq lu bon di indi lu baax ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen wax asalaamualeykum